am toll si juróom benn fukki at ak juróom ñett ki fi nekkoon ministre conseiller bu njiitu réew Macky Sall nekkul guleet muy laaju baatu askan wi moom mi nga xam ne nekkoon na candidat ci atub 2012 nag daal dinay naqarlu bu baax a baax tension gi ñu ne mekku fii ci réewum Sénégal waaye itam jafe-jafe yi tax ndaw ñi di jël gaal yi di wutali Europe. contrat yi ñu def ak bitim réew ba suñuy doom mënatuñoo nappi. bay dem jël gaalu loocoo yi di def ci géej gi loolu yëpp dañ koy seetaan luñ ci war xotti ñu xotti wax na itam ci wàllum justice moom mi jiite kuréel bii di kaar leneen di xamle ne wàllum justice daal kumba am ndey kumba amul ndey moo ci am tax kon mu ne bu ñu ko falee dina boole conclusion assises nationale yi ci programme am. ces conclusions dinañu sukkandikoo ci conclusion yooyu ngir ñu orienté réforme institution yi rawatina institution yi ci gën a am solo. Amsatou Sow Sidibé daan nay ŋàññi itam bilan bu njiitu réew Macky mu dem sax ba koy mëngale ak nit bu am tawat. Sénégal tey dafa mel nii rek euh, nit waaye ban genre nit nit koo xamante ne dafa feebar. Amsatou Sow Sidibé nekk candidate ci jongante présidentielle yi ñuy dëppmal jàpp ne socialiste yi ak libéraux yi dañoo laaj parti gauchiste itam jamono ji kenn xamul fi ñu féete waa société civile moom mu jàpp ne wàcc nañu yoon tax kon mu jàpp ne mu maam bilee di kaar leneen moom kott moom mun a teg Sénégal ci yoon